لرب الغفور dix ci weeru rajab ak juróom ñett yi bi mu sancee Touba nag bari na bi yu nekkoon Daaru Salaam ñëw fekk si Touba ñu ne toll nañ ci fukki nit ak juróom benn bi ñu ñëwee sëriñ defaral sëñ bi foofu ab nekkuwaay mooy fi garab gi mu nekkoon mooy te jumaa ji nekk fi tey jumaa ju mag ji gannaaw bi it sëriñ bi sanc ne ay pénc ci Touba ay kër yoo xam ne fu nekk am na nu ko tudde kër gi mu njëkk a sanc gannaaw bu mooy daarul minan sanc it kër tudde ko daarul xuddus sanc geneen kër ko daarul rahman mooy fi kër Serigne soye bu nek loolu moy penc yi nga xam ni serigne bi mom la ñëk sanji ci dëkk bi di Touba gannaaw ba ko ba ko taxawalee فأكرم به ربا فؤادي به ربا